ماي نورو كوني وسر وجودي وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله على الإدلاق والحمد لله الديم الباغي ففي الجمال والجلال حمد وفي الكمال مزهر وحب في الفرق والجمه نقول الحمد ومنتهى الجمه نقول الحب ترى أن عاص الحب قيب إلهنا وقلب الورى والزاد فيه بدلته فسير عبد وباتنه حمد موكي الإسلام إسلام في إيمان في إحسان في إحسان الإحسان نيوني أدنبي يب comme ni bàyyi nuyoo àddina bi yëpp ñu suñuy kàddu ci kàddu Cheikh Ibrahim jël suñuy kàddu ak suñu pexe yëpp labal ko Cheikh Islam moom mi nga xam ne l'islam muy puguru ci moom. tariqa tijaaniya mu ngi pugaru ci moom waaye faydu ibrahimiya mu ngi pugaru ci moom xam-xam bii nga xam ne ma tànkoon péntum yàlla mu ngi pugaru ci moom kooku mooy suñu sëriñ mooy sëriñ islaam al ibrahim danaa buñ santee borom subhaanahu wa taala julli ci sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam gannaaw bu ko yàlla defee ak ay malaakaam te sanduñu ko sant ko mbooleen ko gëm yàlla mu julli ci yonent Muhammad alayhi salaatu wa salaam te ñu ngi am njort bu rafet di am xel mu dal di am yaakaar bu wér boo xam ne amuñu sikk sax li ñuy wax ne mbooleen ko toog fii gëm ne la gënuñu daal ma xam kon ñu ñëpp suñu ndigal bu jóge ci yàlla mooy dañ jul ci yontal Muhammad alhamdulilah allahuma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih ma walex wala xaat la subax naa fi xàpp làpp wala hadiyi ila sirata mustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa qadari azim saatu ala nabi yëpp wala ban ci yontal Muhammad waaye bi ci gën a matale mooy suratul fatiha nga ne mu lu lu nekk boo ko waxee war nga ci am lay ngir ñuy déglu te xamuñu wala ñi ñuy réeral sataan nabi yi ci wax loo xam ne xëy na demewul noonu ñu ngi ci koor nag koor nag bëggul ku jëw waaye bëggoon ko wax dëgg lami moom bu jëwul rek dana wax dëgg te ñun buñ jëw waaye dañu ko wax dëgg ku leeral xam-xam booy leeral xam-xam nag dana am koo laal waaye daal saatu faati yi bi saatu nabi yëpp bi ci gën mooy saatu faati yi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis ne bu la ñuul julli ci man saatu batra saatu bu dagg saatu go njënd nag soo ko bëggee bu njënd duful soo ko bëggee am da ngay def saatu fàtte moom dem dama yàgg maanaam nag dem kenn ku tënk. moo tax bi bàyyi jàngalee alhamdulilah bi toll ak yunus yàlla moom sooy sam dara jàng bàyyi dem na alhamdu mutlaqan li zaatil suma salaamuna ala al muqtaari basril wujudi markasil asraar yi sibu suun yi majmil anwaar yi kooku mooy Seydina Muhammad mboolem nekk yàlla bi yàlla ñu ngi ko lem ci Seydina Muhammad alayhi mboolem may yi mboolem may yi ak daraja yi ak maqaama yi ak lijaaba yi ak martaba yi loo mën a wax ci sa lamiñ rek te lu baax ki moom mooy sëñ am loo mën a xalaat sa xel ba muy lu baax lépp loo mën a jëf say cër te muy lu baax ki ko méngoo ci loolu yëpp te kenn kas la mooy sëñ am ma dafa joree kon boo ko royee nag da mel da yàlla dana jox ma xaw comme moom nam tolu moom kon ñu bu baax di nuyu di jamaa bi di leen ndokkeel nañ ci weeru tedd ñëwaati nañ ci weeru am ngëneel ñëwaat nañ ci weeru am barke weer woo xam ne mooy sang mbooleel weer yi yàlla am na fukki weer ak ñaar bi ci gën mooy waxru ramadan moo ci gën weeru koor li tax mu gën nag ngëneelu yàlla wax nañ ci alxuraan yu bari dégg nañ ko ci waaye weer woowu nag la tax mu gën dafa am kum génnee ku ko meññ te lu ko wane xamul kan la kooku nag mooy Seydina Muhammad moo gën Ramadan moo gën weeru koor loo mën a tudd rek salaam yi ñun sam loo ko tëkkalee jaay ko loo ko tëkkalee rek jaay ko loo bëgg tëggal la ko ne loolu am kàllaataar loola nekk buy diini ji buy alxuraan buy malaaka yi maa ngi loo ko tëggal laa wax ah nga la koy tëggale. kon ñu koy ndëkkal baax mu ngi ko tedd boobu. indi ñu encore diini islam te mooy diini bi gën ci diini yi. يلا وهن تأقر أنه ومن يبتغي غير الإسلام والدين فليقبله وهو في الآخر من الخاسرين وفتو بنين دين بالإسلام كن هنا نعم؟ على أكرا لك على أكرا لك جيجنا سورنا القرآن يانا جيجنا لول تيجا يقم على أكرا رجل قابل فسويتم مصر رجل إنهم يرونه بعيدا ونرى قريبا من مغيال kon ñu ngi sant yàlla bu baax weeru koor dugg si na jaam yàlla yëpp tey ñu ci àddina bi yëpp ak foo mën nekk yaa xam nga feebar yaa xam nga tukki yaa xam nga ay ngant waaye sa xel mu ci ramadan njëm te weer la woo xam ne dafa ñëw pour xeet li Oumou Sene moom Aïssatou Ousseynou dafa ñëw ngir ramu xeet yi dafa ñëw ngir ramu xeetu Seydina Muhammad ndax xeet la woo xam ne foog ñam bakkaar te bakkaar am yu yàlla di diggale am yoo xam ne yàlla ne du ko diggale su ko neexee nag yàlla moom lépp su ko neexee mu diggale bi ndaxte moom moom lépp te kenn du ko defal lii mbaa dafa laa su ko neexee ne mu diggale bi nag waaye nag li ñu dalee ci alxuraan mooy bàkkaara bokkaale du ko bare bu bokkaale su ko neexee mën na ko bare moom loolu la wax ñun loolu lay wax a bare lépp te nag yàq ne mën naa bare lépp ñun ñii képp yàlla subhanahu wa taala réer yi ci ñu a bokkaale waaye nag yàlla gis ne yàlla xëy ci benn ak jaam. mooy seen islam ñu ñëw ci ron départam mu jox ñu tarbiya ñu sikkar def fanaaw ci yàlla yàlla baal ñu bàkkaar yi kon yàlla bu ko def bàkkaar mu baal ñu bàkkaar bu baax waaw su ko defee dana ko mën te incha allah dana ko mën ci jaam yoon te dara incha allah yàlla yàlla bokk wala jaam ñi nga xam ne dañ doon toog benn jëf ci jëf yëpp nekk leer ma ne weeru koor a ngi nii nekk na ñetti fukki fan nekk na ñetti fukki fan muy trente léegi nag am na ci ay nit yii ay borom xam-xam yu wuute ci hadis yi léeg-léeg ñu yi am yu ñu yi wér na ak yi wérul hadis bii may bëgg a wax nag am na ñu ne wérul am na ñu ne wérul man nag maa ngi ànd ak loo xam ne wérul man maa ngi ànd ak yoo xam ne wér na tey wér waaye mooy ban addis ñun sax dafa wax ne yow ma ah, yor kon ba ñëwee awaluhu raxba njëlbéen koor gi waaye fan ñëpp yi yërmaan yàlla subhaanahu wa taala wax dëgg yàlla loolu kon wérul xam naa ne yow ko iñaan yaay wér dégg na yaay wér yërmande yàlla dul foore ak ni mu neexee weeru ko ñëw lakk bàkkaar nga du yërmande yow da nga déglu nag wax di yàlla kooku mu yërmande la même bu àgg si àgg si sax wax mu wér koo xam wax day awul jël koor la te jël beneen koor ana tafsir nasru maanaam am na ci bu zahir bi mooy loolu rek da nga wax rek ñëpp a ko bokk yàlla mooy yonent bi wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin kon loo cay déggee fukki fan njëkk yi ki ko moom mooy Seyduna Muhammad moo ko moom donte moom lépp la dangay ngay jox ku ne xaqam yéen yàlla neen ci alquran jox leen ku ne xaqam yéen sama ci xaddis ne ko ne wàccuwaayam loolu la kon awla rahmatu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy far njëkk yi aw suufu digg bi buñ ko waxee digg bi buñ ko waxee bu ñu waxee digg bi mooy fukki fan yi nekk ci digg bi nga xam ne moom nekkul njëlbeen te nekkul mujj xayru umur aw satoa fukki fan yooyu nag moom mooy moom mooy njëgal yàlla njëgal nag yàllaa ko moom waa am na ku mu koy dënk gis nga yàlla moom la yàlla ci bopp ñoom xam na ne moom la waaye daf koy dénkaane dafa dugg luy dénkaane ay may bokkal ba du ko doxal yéen maa ne yàlla yàllaa ko moom waaye dégg nga yoon daal ma xam foo maa nekk ko ci demul doo ko am njëgg nit yàllaa ko moom waaye jox na ko sotti yàlla te tam yàlla mooy xafoor mooy rahim yaa nga nañ ko gëm nañ ko waaye jox na ko sotti yàlla setti yàlla mooy jëmmi njëggal donc su bëggee jéggal da nangul Cheikh Ahmad ak Tijaani en face waaye xëpp mel naar yàlla may goreel koo neex moom samar moom àjjana moom ca goreel waaye goreel googu nag dana ko Cheikh Ibrahim Niass boo demee xëpp mel naar kii boo safara mooy Cheikh Islam ndax safara mooy kii safara boo ko déggee rek mooy ijaab kiiraay yi nekk suñu biir ay jàll biir jàll ak yàlla mooy mooy sabab kiiraay yooyu nag ki koy dagg ci ñuy day di di sa tëj nga jàppal si yàlla subhanahu wa taala di yàlla ji kooku mooy sa islam kon kon naar kon iman maqaama ihsan al maqaama shariatu maqaama tariqatu maqaama xaqiqatu waaye nga ne maqaama xaqatu muhammadiya xaqatu ahmadiya xaqatu xilaaf laay tabaraka taala ولا كان مقام النبوة والولاية ولا الخلافة ولا كان مقام ينتهى محمد ولا الشيخ جيل ولا الشيخ wala rek gaay ñom dañu xam borom kal li nak moy xam xam yalla bu rafet noko tuddé rek noko waxé rek gaay bu ko ñu koy jël gaay tuddé jël day xam ni wax la lañu wax nga wara bari la ni way yépp ko shatta bu mëna ko waxé ñu sant yalla ba ko ci wéru ko ñëwati na ngir ban yalla ngok dafa ñëw te ñun ay borom bàkkaar la ñu nit léppam bàkkaar la waaye nit léppam leer la nit léppam bàkkaar la léegi nag lay nekk leer ak ka lay nekk bàkkaar wax naa rek saa yi rek bu ne suwe suwe yàlla wax ci alxuraan ne a man musul góor na nañu suñ yàlla moo ne bokkalkat yàlla ñooy sobe sobe mooy lan ak kañ la dox bul tout daal di nekk sobe am ah. dafa am benn instant nekk sobe am instant bu muy laabee loolu nag yàlla ñu ko jox mu xikma dafay mel léeg-léeg dana amaloo alal léegi dagal léegi yàlla day def noonu xaraamal dara léegi daana ko léegi bu ne nag daa ci mos tuuti xaraamal léegi dara léegi mooy yam ci koor xaraamal lekk naat ci bul lekk bul naan bul sëy bul jëw léegi léegi léegi rek ci seconde bi rek ñu ne dog jënd rek mu dara kon xaraamal léegi dara la léegi kon xas léegi taggal léegi mu naan kay xas léegi taggal léegi ak taggal léegi xas léegi mu naan wane ba fajar nag moo dem dañ lay tagg weer ni xas la lekkal naaral ci fajar bi lekkal naaral tagg nañ la fajar kont ji bu lekk mu naan xas kon tagg léegi xas léegi mun na nekk ça dépend na ngay defal maa ngoon di tey bisu ouverture la moo tax fokk ñu laal lu bari yàkkamtuwul naa muy sobe mën a sobe kañ lay nekk sobe nit ku nekk ci ñun yaa ngaa la sobe te du sobe saw kañ lay nekk sobe bu génnee boo jàppee ba set ñëw na allah bon yaa ngi julli ngelaw génn ci yow nekkal sobe waaye bu léegi déggéenul nag du sobe kon sobe léegi laab léegi am na jàpp ngaa pare sa ka dem saw nga dem saw nga jàppaat nga laabaat léegi kon sobe léegi laab léegi am na dem duus ka salika benn la ndaw salika àndaloo moom nga ne moom léegi rek sobe génn naa pare rek sangu rek foog si jaa jaaraat wala bu ngay xalam na nga xalam xalam nag boo ko mooy bu ma xalam bi gaa yi xam nit day xalam ci boppam xel xalam la rii nga rii ci ngaa dayoo li liggéey mooy xol bi xel bi may xalam xalam bi ngay xalam loolu day xalam ca ndaw sa nag ba sa ndox bi génn mën a nekk mën niiw mën a nekk lu oyof am si yu yu mel noonu daal waaye daal xalam am na kon mën ni daal bu génnee lee nekk sobe waaye ba nekk ci biir dina sobe loolu nag jàngale bu rafet la ci lislaam yàlla it bu nekkoon indi mën musul kon nañu suuf képp ko bokkal yàlla subhanahu wa taala sobe nga léegi nag kon yooyu tamit jàmm bi soo delloo ci yàlla laab nga soo génnee yàlla sobe góor am na ñeenti sobe góor am na ñeenti sobe jigéen am na juróom benn sobe kon jigéen moo gën a bëri sobe sobey góor yi am na yoo xam ne balaa nga sam am yu balaa nga laalee ko sobe doo sangu mën yu bu génnee danga sangu mën yu bu génnee nga sangu dem douze du temps sangu pour dox du doxa ah. sam moo tax ñett yooyu na leeral ñett yoo xam ne boo dee doo sangu te benn moom da nga foog a bi yàlla moom xam naa sama gars yi ñu ngi gis affaire code ni muy génnee léegi nag Cheikh Ibrahima tey fii ci Sénégal moo ëndi sa benn teg dafa li nafsi aybun lil fuaadi aybun li ruuxi aybun laysa fiihi raybun mooy sikk am na liy sowe ma bàyyi wu ñetti la di ko waaye bàyyi ñeent la andi benn nit mooy sa am gi ci boppam la laalu yu ko zëngul la yàqal bi zëngul bu la bàyyi bàyyi te boobu mu ci biir la wax. moo tax boo doon ca asal da nga asal ñett mooy ruux bi gis lu xol bi yëpp sobe damaa dem ruuxam sobe la yaramam sobe la xol sobe la kon nga liggéey nga liggéey sobe si bi sobe moom ndox yi raxase te ndox bi du ko raxas moom ndox mi ngay raxas nag am na ndox nag yu ngay raxas mooy bi maawla xayaa bëru bi soo paree du waaw ndox yaa ngi ndox yaa ngi ndox yooyu nag yàlla bu ko am ndox yi ñu xam ndox ndoxu maanaam la. Cheikh Tidiane yi suñu sëriñ ne tatahar bi maa ula kay bi in kunta saa sirri wa ilaa tayamamu bi saidi wa bi sax boo laajee nag ci ndox mu sale bu ne na waqat bi day sax waqat bi imaaman kunta anta imaamuhu loolu yàlla ñu yàlla may waqatil imaamun kunta antil imaamu wax dëgg yàlla lu rafet dëgg dëggul yàlla ñoo baax loolu ñëwul dégg loolu nag li ñu ciy bëggee tijaan yi mooy wala aarif bilaa bi boobu waxal aarif bilaa rek bu ko defee nga maandu te moo ko rafet aarif bilaa aarif bilaa ku xam yàlla dëgg dëgg xam mbooloo moo dem ci at mi yow sax boo neexee bul digg arab xam nga digg arab moom làkk jàmm na rek déggal bi yàlla bi rek maanaam yàlla bi nekk aara bi la mbooloo ma mën a arab luñ dégg nag ay man dëkk ausa bayaan grammaire dara tëj wii neex baax moo ko la alquran de moo ko la alquran dara te yow nga xam ne dañoo xamuñ lii mbooloo moo la yaay mbooloo boo dem yaay imam bi waqat bi imaamul kunta anta imaamu te yooyu yaa ngi yow seetal muy jiite bi yaay imam bi naka kay jiite moom buy lëkkaat bi doo xam fu mu taxaw. doo xam fu mu taxaw te yow booy lëkkaat bi kon bokkul li baaxoo julli ji ba tey julli ñetti maraan ñu ci biir yoo xam ne dëgg-dëgg yi ak rafet ak rafet ci julli sëmmal ñetti maqaama yii moo tax ñetti maqaama yii moom yàlla koo def office ci lislaam ndax la ko def dafa naqay dégg moom daf lay wax ne wa alal masaajidillahi fatramalaay naka jàkk yàlla yi jàkk yàlla yi kenn ku yàlla te boo noonu yi diw ñëw ak dëgg dëgg dëgg baal kon kon lan ordre la waaw bu nootee dëgg koy baal te moom day ñëw fa la fos te te jaam yàlla boo lekkaay ma ci baal day ñëw boo tawee bay sëñ moom fu mu taxaw sa kaw yàlla ku jàmm kon ñetti ordre la di jàmm kon leera bi dana bëri tuuti ndaxte lii rek mooy tax jóg même taxi bi ñu def tamit di tax rek pour leer rek te lii leer tax bi rek ak mooy jox ni amul daal lu gën leer di jox ni waaye bu ñëwee tamit misaal tey misaal ñu ngi war a commencé wër artu istitaal bu fekkee nag nga bëgg a wattee jabar beneen jabar xam nga loolu la loolu leer da nga wattee jabar beneen jabar maanaam nga am ñeenti jabar da ngaa taw a teel takk war nga takk koo xam ne xel ba koy takk da nga koo gërëm guddi nga takk ñeenti jaroom kita xam nga doyoo da nga mel ne doo naan bëre nga dem yàlla nga gis mu effacé kenn te yow kan nga effacé koo ko ci gars yi xam nga kan koo war a effacé dafa dara ah ah loolu moom loolu moom loolu loolu moom leer na aar gis nañ loolu parce que parce que tamit yow jamono yi nëbbu wuutu moom xam nga moo xewoon moom nëbbu doon na ko. kon nag ànd ak moom ànd ak moom yàgg rek xay ñetti jamono taxaw ba mu yàgg rek. wilaay wilaay war ba feeñu. mu ne wilaay taaru lool. kon dañuy effacé. bàyyi gars yi jëfandikoo gars yi. waaw loolu moom yàlla dina ko. macha <laughs> allah te ay yoon yi war dugg si incha allah.

médecin yi ant na ko képp ku nekk médecine rek ci affaire médecine nag maa ngi ndokkeel ci sa weer bi ñëwoon ma weeru médecine baa ngi nii médecin yi nag am na ci biir weer bi am na benn médecin bu ñëw ñu woon ne damay faj ci weeru koor am na benn médecin médecin bu jógee wilaay ñëwoon ma damay faj ci weeru koor benn weeru benn médecin jógee ci kanam bi damay faj ñetti médecin yi nag ñu ci weeru koor di faj réer koor mooy xadara bi ñetti maqaam yooyu ñetti médecin yooyu ñu ci biir di faj kon naa nga dokkal baax médecin yi ak médecin yi médecin yi mooy ñi jàng médecin ba médecin ñi dokkal ko ci ramadan mu barke baax ramadan weer wuy lakk bàkkaar wax naa ko léegi te ñu borom lañ kon suñu la léegi nag li ma ci dénkaane man du bari ndax tamit lu ma dénkaane parce que li war dénkaane dénkaane boo pare pare jàngale na borom tarixa jàngale na borom fiir jàngale na borom ñëpp jàngale na borom subhanahu wa taala kon jàngale waaye nag dañuy fàttali ngir fàttali dana dénk ko fàtte woon parce que mu ne maa anta muzakkir am na fa zakkir inna fan zikra am na ñett ñaari am na danañ jëriñ ku gëm yàlla danañ jëriñ su ko fàttoon ñu fàtt la nga nga fàttoon ko ko soow dem fenn ndax dañuy isaab ak du ne isaab jërul lay lekk soo pare bu dee dangaa lay soo pare comme yàlla waane ci yéen soo wax ci xaj fu wér ne yow nag day gis sa tànk foo di moom tànk nga tànk xool fi ngay def rek daa xool fi ngay def rek waaye nga ko pare yaa ngi moom tànk yaa ngi def fooy def benn mais yaa ngi daqal sa loxo yi di fi gisaat gëm ak ma loxo xool su bopp noo koy def ak foo koy jàpp ak jàpp sa bët yii yéen koy gisam wante rek la ci xool lan a xew sa nopp yii dañ koy gisam te nit yi waaye rek la ci war a déglu da ngaa dem di ay gëdër di bay nelaw di jooy wala da nga wëndeelu suñu bàyyi am na woon ñaar doo ci war def sa kàddu gi ni muy isaan doo ci war a wax ndax saaga ay nit wax ci ñu lu bon ah wax ci ñu lu baax bi doo def wala yàqam doo ci war def sa bakkan nga sànni sa pëy sa pëy nga sànni ah dañ koy sànni gaañ dañ koy sànni ku nekk na ko sopp rek gis nga aay yi moom bul dugal kenn wax dëgg yàlla ku ne na ko sopp rek. ku nekk rek bul fa am suuf suuf afal suuf gis nga mooy loolu bu ñu waxee mbaa wala sa bopp ndax yaa ngi tànn bu ñu waxee mbon parce que ndax ngeen nga jàpp waaye bu ndaw tubaab kenn wax boppam wax boppam nit na kon sa pays nga ànd yow day man te pays yàlla ko sori ba bay pare xam nga ah il daal man fi nga làq ñu sore rek ngir garde ko rek nga bañ a fittatu ko rek dégg ci mooy si wala faar yi loolu yëpp pour wane yàlla moom làq na wàññi làq na ko fa sori kon bu génnee yaa ko génne yaa ko génne xam nga man siif sa boobu siif siif wala ko ko dolen mille fois mille fois bu gëpp doon wala wala da koy rey ba man ko yoon wala da def ko ba mit ba mutul nit nekk nit mu ne ko tëgal du neexat yàlla sama ngoo moo gëm fa mit parce que la ngay mbir ba mu yore ko ba pare ba am ko na nga bëggee non non loolu yóbbul parce que fa yàlla ba lakk affaire bu sori moo tax bu fenn fi suuf la bu nekk la ko soppal dafa am yokkoo ne moom juruwaar nit ñi léegi ku nekk rek poche bopp ku ma waatee bi léegi El Hadj Ndiaye Sow ma bëri wax dafa nu waarate man ma warat man ma warate de sa bopp lay waar sa bopp moo lay waar man ma waru woon xool sa bopp rek ma waru moo gën man tooñu woon damay fàttali rek yàlla ci la ku nekk daal ne gis boppam ci lii xam nga xawra fi may làkk sori na muy xawra góor muy xawra jigéen ku nekk rek fooy yàlla yàlla yàlla ko sori na trop. ku fi jot normal yow la nekk yow la nekk léegi nag gaa yi am fuñ jaar xëy na dafa jaay dem yow la neex nga jaar fragat boo def fragat rek gis nga bu ne ñu ko jot trop trop yaa fragat borom trop doo fragante doo fragante ndaa dem loo di loo loo loo ci borom borom xam nga bandi la kay nga def fragante yaa ko tey voilà kon yooyu yëpp nañ koy seetal baax moo tax lii kenn ku ne dafa gàtt ci weeru koor lii weeru ko ak après koor yëpp nag la waaye rawatina ci koor gi la ñetti mbir a ngi nii ci koor danga yàq koor lool muy bëy day tamit baax bii ja ñi mel xiif rek te góorgóorlu baax te mun ngir yàlla foofu beneen mooy kat lami ñetti ñii ñooy xaw ñoo xaw rek góor ci koor xaw ci koor ñu moom góor jigéen ñi ci koor awray góor la awray jigéen ñun ñi taw yi góor yéen jël ma waxay bala ma ñangam jaram leen nag ay moom wax ñun ñangam leen ma moom xam nga bàyyi ñes yàlla yàlla fay bàyyi ñes yàlla yàlla gërëm Islam yaa yàlla fay lu bàyyi des. bàyyi dama déglu benn kese bu ma suma doom bi envoyé woon mooy Dieng Sarr bàyyi di wax ne koor bu ñëwee nga jëw mu ne jamono yu taw sax dafa ma sàmm ñaari ñu wooroon di jëw benn waay. ñu sax woo leen ñu ñëw toog mu ne yéen da ngeen doon jëw mu ngeen. yàpp ci biir weeru koor kon dog ngeen. Hmm, waaw ñu ko lekk yàpp gi mu ko ñu ngi xamee bu nga dem mooy lan lekk nga yàpp de. yàpp nit. gaa yi toog mu ne ah mu ne ah mu ne ma ni bool ndax tegal leen waaye mu ne gaa yi ñu ngi doon def tegal leen ne ne ne ne ne loojul dafa ko loojul gën a yàpp ak deret boobul bi dikk mu ne yow keneen ko loojul keneen ko yóbbu ko nga doon mu ne lii ngeen ko daan lekk ñu ngi ni keneen ko lekk mu ne biir jiw jiw. bu yéen a jënd doon jiw jiw doon jiw jiw sànq di ko jëw mu ne ma léegi léegi gën a lekk da ngeen bi kon ngeen di witte kon ne ngay làmmeñ xaw na la dafa daal yàq koor jëw jëw yàq koor bàyyi mu ne kon nag te koo ñëw nag may nga ko màggal bu rëy parce que yow mi ko jëw yéen war a am koo te ñëw ko yow soxla moom la ko jëw kon koo war a jëw kon bu yàlla nettoo ba mënoo ñëw nga ñëw sax rek ah waaw nga jox sa doom nga jox koor gi nga jox sa doom wala fi sa xarit mu nga jox koor gi waaye ñëw sa noonu ba pare sa doom gi yàlla jàll musa musa dafa ñaari kon bii jëw nañ ma ne bàgg bay jëw moo gën suñ ko mën suñ ko mënta pare na ñëw suñu xarit ngir boo may sax ñëw ah, sa noon rek dana jël sa bor gi kon yooyu ay leeral si jéggal béegi waaye nga baax na ci la bokk wala mooy mbir kon nañ war seen làmmiñ yi te làmmiñ tamit pourtant ngeen làmmiñ bi yàlla ci pëy la ne ci làmmiñ dafa ñaari ridu ñaari ridu bi jógee ijat bi ñëw inda mu tuj isdat pakata mu jël ñaari bëñ bi jógee ijat bi inda mu pakata mu nekk ñeenti kaso da nga nekk ci biir waaw waxta gaaw génn waaye waxta kooku waxta gaaw génn xam ngeen ne wala bu gën a na wax lu baax moo gën waxal lu baax rek waxal lu baax nag dëgg-dëgg moo gën donte jafe na ci nit ñi dañ def wax lu bon moo baax parce que nit di wax ci moom ay wax yu bon di ko wax ci wax ci sante di ko dëggal fu mu dëkku wax ko inkaar nga defar yaa ngi ci bànneex ah indi ah yaa ngi ci bànneexu bakkan bi yaa ngi ci suuf bi xam suuf bi mun bi xar ci la nekk ñaw te bu gën a bon ñaw ci la nekk wax ah, daa waxoon na seen moo gën alxuraan nee na wóoloo li naa suuf si wóoloo li naa suuf si waaw waxati nit ñi nit ñi loolu wóoloo li naa suuf si dëgg dëgg dëgg dëgg te bu dëgg day bëgg wala xusan na loolu moom xusan bi laay rek moom yu bari laay waaw da aay moom da ci xadis xusan bi laay moom yu bari laay soo waxee ñu la ko nag mooy xusan bi laay moom yu bari laay xam nga ngeen daal trente minutes kon ñu ngi sant yàlla bu baax di bég lool ci teewaayu adara bi xam nga ne lii rafet na dara gënu ko dara dàqu ko wóor na boo ñëwee fii yow wóor na wóor na boo ñëwee mucc fii muccukaay xëy na boo gënee nag lu benn rëggu bu ànd yow nga ànd yow nag xaaral fay toujours bu la waaree fii ba nga ba ba ba ba mu xam ma sama gars yi rek waaw waaw fii at dana gars yi sama ñaar day coow rek moom daa xam daa xam lu nekkee dama ko man la wax nga dégg waaw moom lu nekkee dama la wax dama la wax waaw loolu la garawal nag ala mu moom dana waaw ko ne nga xam yàlla sax mu mu yàq benn aaya gis nga waay say bàyyi la mu lay gaaw ba joxoon ko kon ñu sant yàlla ngeen déggee cër ñun ñëpp ñoo cër na li ma xam ni man mi ngay wax ak ñu ngay jur rek ñëpp cër ngay wax gënu ci wax ji kii bi dégg gënu ci wax ji kon kii wax kii diggante bi xel ci li ñuy wax nii kii nag mën naa nekk wax kat ci baax di wax moom tamit rek ah, waar yi tontu waaw kon waar day fekk bandi ba a mu yàgg rek mu dem mbaar bi naan sax di naan sax benn ñaari gaaru mu ko def ah diw mën a la béy ñu ne ah diw yaa doon wàcce mën waaw man ah yow mi ñu ne sanga mën waaw man daanaka woon dama sanga man ñu wax waaw wax naa dama sanga man daanaka xanaa xaw laa woon rek waaw boo ko daw mën banaan de ku musuma duma naan damay la nax ah, baas naan saa daal baaxul waaw wax naa wax naa leen ci loolu yàlla wax naa leen wax waaye man li mu bëgg nag mooy li ma loolu dafay am xam ñu mel noonu waaye nag ñu ngi sant yàlla yàlla dimbali ñu baax moo tax comme muy tiit baax na gars yi comme muy tiit baax na lool mais mel na nag yow da nga gërëm waaye baax na booy tiit nii ba doon mun nelaw ci xàq yàlla baax na kon baax moo xam nga ci sa xol bu dem ba tiitutu naral yàlla ñu ko faral ci kon ba dem ba tiitutu maanaam ku baax ba yëg ne yow rek yaa baax amatoo dara yu bon ñu nga dal du jàpp kiraay du jeex sant nga kiraay sant nga benn tëjli boo xam ne ngi saxal xamoo xamoo la chaque jour benn affaire gra gra benn affaire benn grain ñëw ci sa xol bi sa xel mi daw te doo xam la kon ku dem ba ne dëgg-dëgg lépp laam na tuubal kon nag maanaam nit dana bokk sant yàlla a na waaw nit dana bokk sant yàlla ah, jeex ci yàlla ci jeexuwaay yi des des waaye am na nga danga ko sa mbor nga wóor ci yow xam wax ne la am waaw dafa foofu da nga ngir sant yàlla waaye bu ko ngir puugur mu nag soo puugar yàlla ñu gën tëj sa kam ba léegi loolu lay wax léegi ah, waaw kon loolu yëpp sëñ bi nañ ci bàyyi xel ñun ca Ramadan toujours comme am nañ temps yàlla wax na am na jot tuuti moo tax bu ñëwee ci yu mel nii ñu ciy leeral ay leeral comme ñun ñu ko yóbbaale muy sëriñ <coughs> ci ku <coughs> la te sëriñ bi ci gën mooy taxawaam bi ci mooy ragal yàlla ñun nag ay jaam lañ nee nañ gëm yu daal Muhammad ba pare te ñu ngi wéet ñun jullit dañ ne gëm ñu tam te ñu gëm ñox naka wit xaalis bu ñëw bu dëpp ak su mbëgg bu ñuy dugg xaalis bu ñëw sa xol bi te lépp mu tëgg day sa mbëgg bopp mu daal si day nga windi ko léegi moom day day fooy itam xalam ko wax ayoo ne la ko waaye da ngay fataa ah ngir di daal ngir ngir daw suñu bëgg rek dañu ko wér. loolu la yëg di nga ko di daal daal suñu yëg waaw bu mu soxla waay waaye man ma kon daw sama voilà yooyu ak yeneen yooyu yooyu mën nga ci bëri na bëri na bëri na moo tax euh, dëgg-dëgg euh, di yàlla ñun ñëpp tey góorgóorlu baax ci jëf yeeg wax yi. te te ñuy te ñuy waxlaante aussi ñun tamit ku nekk ñu lay wax borom ku gis sa morom ci loo xam naka loolu la wax waxtaan ak moom. waaw dëgg bañ waxtaan moom rek même si bañ a waxul dëgg ñun sax sa mbokk wax xalis na bu wér sa mbokk la wax sa mbokk bu defee buñ ko tooñee mbaa bu tooñee tooñ nag mooy la ak boo tooñee parce que gel ba leen fee ñëw te bu wóor woon tooñ na la. ba mu yàgg sama kër ñëw na la garaawul jël ko. jël ko jël na la waaw jël ko na waaw jël ko rek garaaw. ñu rek bu tey passé dootul day am. Ah, voilà ba bu ñëw sax bu ñëw bu ñëw sax yàgg ragal yàlla bu ñëw bu ko def waaye nee na yàgg rek mu dem na waa jël ko rek wóolu ko rek après nga tubaab garaawul. macha allah ñu ngi sant yàlla bu di kontaan trop di koy yemale fii di ko tëggee du jeex moom dafa nekk menace yu neex dafa nekk wax yu xam ne wax yàlla dafa nekk ci xol nit yàlla biir yoo xam ne ñëwee day nekk xol léegi ndox xol yu waari lay waaye nag nañ dem comme dañ ñëw pour fàttaliwaat ne ci alxuraan quelque aaya rek xëy na tey du bari ndax tey nag couverture bi ubbi ubbi mu ubbee ko lool ubbee nag te kasu ren bi. lu ci bëgg triche lu bari am gars yi parce que nag doo mën a un mois daal man ma tam bi pam yaram bi dafa xaw a sutati tuuti bu ma ko wax ci télé ci ci direct bi parce que noonu bu déggee day kontaan parce que bu déggee day a kii dara ku ne doon jaar li ma li ma li may li may wax yaa ngi parte ji nga da nga jaar yaa ngi sax loolu nag kon garaaw bi ñu loolu la léegi dañuy tricher yi bu ñu jëlee benn aaya tafsir boo pare tuuti rek ñaari aaya yooyu dañ ngay bàyyi jël xadis ñu ay dégg-dégg ku nekk waxtaan ci loolu daa rafetal affaire bi noonu laa gisee daal ñu gis yàlla tuuti xuraan bu ñu gisoon nag ñu ko ne kattan nga defaree comme paay kon ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu su loolu dikkee mu ngi mujjee ñu ne baalu àq yéen ñëpp képp kenn ci yéen wala képp kenn ci ñun ñu ngi baalu àq ci boppam di ko ndokkeel ci boppam di wax ne xaq ko mënut a jàkk suñu diggante ndax tey war a jaay wax ne ñu booloo ay koñ ñoo ñu ko waxee ñu bokk teen ñooy mais na sax ay koñ kon ñoo bokk ay teen kon foog ñu amul yuy sosal ñu amante ñu leen xale di werante nii la du nii kii mel kii kii mel kii léeg-léeg muy am xëy ah, na waaye nag dañ ko yëpp dañ ko dal caa rek waaw rawat mën ta ñàkk xëy na foog ñu ëppante doole waaye bu la amee tamit dañ ko dal caa rek muñ te ko rek xamal bi sa borom moo tax moo tax suñu soxla kon yàlla digal nañ ngay jënd góorgóorlu baax rek bu ñu indi bakkan am na yoo xam ne bu yàggee nekk bakkan xam nga yàlla bii bu yàggee nag nga jël mu nekk sa bakkan même yaa ngi man de maa ko gën a xam maa gën a dégg maa gën a nangam maa gën a lii yaa ngi nekk bakkan dugub yaa ngi bakkan dugante yaa ngi bakkan dugante nañ ko góor rek bu nekk daal loo mën a sport ñu bëri ko jaay ñu koy ñu ko daay mel ci moom ci bayit yi bu neexee nga wax ko mu neex ay solo ko jox leen ko wax nga ay alquran ñu jàng alquran waaye bëgg ko bindal ñu ko rek jàng ko dégg-dégg wax nga ko xam nga ko bu neex boo xam ne boo xam ne ngaa jël wax ko ñun ñëpp jël ci amul problème ñoo bokk ñoo bokk nañ ñoo bokk baax ñoo bokk benn macha allah ak ànd ak ku nekk daal sa macha allah kon macha ñoo bokk loolu la yàlla wax kon nañ leen rek loolu loolu mooy dëgg. gis nga yow soo koy dee ci ci ci kii da nga ko gëm ci yàlla xam nga lu araam wax ko bu la bokkul boo bokkul macha foofu leen araamalee waaye yéen ñoo ko macha araamatul ba jox la exemple rek wax naa ko ba tey ma ne sooy dox gis nga boo toogee nii toog nii si cër yi bëri bëri bëri bëri bëri xam mu ay rek. te na mu aayee toog xam nga gannaaw bi mu aayee toog waaye gars yi mu demee bu ne mu yàgg rek ñu ne man set benn élément ci la mu aayee kooku rek ñoom na kii na ma naam yow owuñ la di owuñ laa may dégg nopp oo oh, nopp moo ma moo di gën daal man set waaye ndaw bi mu naam moo di yoonam xam nga mbokk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 اللهم صل على سيدنا محمد البادي لما أخلق والخادم لما سبق نافع بالحق ولا إلى صراط المستقيم ولا إلى قدر مقدار عظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله علي عظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطني بنظرة تأتي لنا بظلم كن بوكي yi ñu ci tafsir bi incha allah ci 2019 bi yaakaar naa ren mooy ci fukki at ak benn depuis 2008 ba léegi xaj kaw bi jeex loolu bu dee am na lu muy jàngale rek jàng lenn rek leen ci jëlee mooy ci nga xam ne moom leen àndal muy leeral leeral yi baxrul laa saahila loolu nag mooy géej bu amul tefes la yaakaar naa ne depuis deux mille ak léegi tafsirkat yu bëri wàcce nañ fi kaamil lu mu néew néew fukki yoon wala boobu bu dee ñenn ñi sax ñu xaw a gën a tere dañuy def kaamil bi ci ñaari at ñii di ko def ñetti at waaye ñun nag deux mille ba léegi ñu ngi ci kaamil bi te génn duñ xat tool loolu na ko ñëpp xam kon ñuy ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla yàggal ko si kanam gën koo dëgëral bu baax incha allah suñu tëbb si moom daay man ne daaw ñu ngi daanele woon ci dix-neuvième aaya bi mu ngi tolloo na le dix-sixième mois deux mille dix-huit ci bisu mi ngi mujjee woon ci mbiram jigéen ñi ay dencat yooyu gannaaw ba njeexalee miraas yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu laa yaxillu lakum an tarisu nisaa kërhën loolu leen daani daw ndaw eh, te yéen gaa yi gëm ñu ci yéen ngeen donnu seen ngeen donnu jigéen ñi ci force aada arab bokkoon na ci jigéen den ka daan donn comme ni ñu doonee matériel yi comme ni ñu doonee kër ay fas ak jëlëm noonu leen daan doon ne ay jigéen ñi bu sa bàyyi amoon ay jabar bu demee da ngay doon si jabar yi force téegu yàlla tere loolu ci aaya bi la ko tere waxaat itam wala taxduluhunna maanaam yow doon nga ko gaa na sax xema moo ko waaye am na alal yoo xam ne te bàyyi fa ko si moom nga bëgg koo téye di ko sondal yàlla tere ko si biir wax ji koo xamante ni am na jabar jabar ji def nga si moom alal ju bëri xememetoo ko waaye bëggoo koo bàyyi ngir alal ji nga def si moom moo tax nga téye ko bañ koo bàyyi pour beneen góor jël ko te borom ma xam waxoon na leen li bëri saakitin laakit li bëri saakitin laakit lekket boo gis am na dëppit jigéen nu mu mënta mel boo ko soxlaatu boo ko bàyyi am na góor goo xam ne moom dana tolloo moom te dana ko gërëm kon wala taatuluhunna bu leen leen gàllankoor li tazhabu pour ngeen demee lekk li baali ma leen fi nga xam ne bu mun a jox ngeen leen ko jox kon lor jigéen soxlaatoo ko téye ba di ko lor tere leen ko waaye nag yi daal yaati na bi bàyyi sa mu bay loolu ko dafa dikkee ñaaw teef bu biir loolu nag bokk na si mu yor làmmiñ mu ñaaw di la sonal wala muy jënd di la tàggu xamoon na mu ci góor ñi loolu yëpp boobaa. Eh, borom xam-xam yi wax neen foofu dana dagal nga bàyyi ko mu dem nga téye sa bopp ndaxte moom moo moo lay moo moo indi jikko joo xamante ni bokk doon si contrat bi fu mu toll di la saagaan di wax ju bon ñu génn di tàggu di ay farak lu nekk nekk si loolu yëpp ak njaaru baa yëpp ci biir boobaa loolu lañ la tere woon may nen la waaye yàlla li mu mujjee rek waa ashiruhunna bil ma'ruf na ngeen kàndaale ñoom si njëkk. njëkk boobu nag mooy ci wax ak ci jëf ci wàllu kay ay yu demee noonu moo tax bàyyi yof gi nee na képp ku takk jigéen war na la ak nafaqa nga dundal ko ak ci suwa fodd ko sa ginnaaw may dëkkal ko ak jimaa sëyeeg moom ak rafetu kàndaale gars yi daan nañ ko dëgg wanu kisasa mooy waxtu nafaqa kiswa dëkkal mooy sakkan ak beneen saat mooy sadaf muy cat góor yi itam juróom yooyu bu si bàyyee benn rek ndaw si am na droit tànn ndaw si am na droit dem tas si boo takkee jabar joxoo ko dépense ndaw si am na droit génn sëy doo ko nangoo dagal yëri mu bu ko neexee dem nangoo ko wutal ay sëy moom bu ko neexee dem naka moom rafetu gàndaale moom léegi nag jigéen nga nekk ak moom mu yor jikko yoo xam ne neexul la xëy na am ngeen njaboot nga téye ko di muñ yàlla ne waaw boobaa fekkee da ngeen leen si na fi nga it mu na xëy na gis nga ñeneen ñu gën a kii waaye nga téye ko rek ngir kóllëre fansaan te ko seen na ngeen si dara neexul leen waaye delloo fii xayran kafira yàlla ci yu bëri mooy ñaari jigéen ñooñu ñoo gën a mun jur doom yu baax sax far yàlla mën na si def doom ju ci la bàyyi di nettali fii encore ci benn nit yàlla moo xam ne dafa amoon jabar joo xam ne jabar ju doy waar ju ju ko sonal yàlla def ndaw si dee rek mun alhamdulilah bañ a takk jabar toog benn nit muy jaam yàlla si jàkke ji gént ay malaaka yu ñëw jël jëf dama nga ñëw di ko romb naan kii de moom moom moom xut la moom xut la kii de ko jéppi yàlla da ko jéppi mu ne leen kan yëpp ñu ne ko kanaa yow yow sa jabar bi moom lay lor gaañu rek coono yooyu nga doon daj rek tax nga jigéen ñëpp yow nga bañ a takk boobu ba léegi yàlla yëgee ci sa jëf sa jëf yu baax yi xoolatuñ ko sax ba mu yeewoo la dam takki ñetti jabar dundam yëpp foo ko fekk rek dana am yi ñetti jabar wala mu yore ñeenti jabar kon ndegete yoo coono jigéen ànd ak moom di ko muñ lool moo tax kon bàyyi na loolu mun na tax yàlla wax ne waytal laa fi xëy na askan. moo tax bàyyi na maa yajiduhu rajulu min al isaaya rabati waaye nee na góor lu muy jànkuwante si loru jigéen loru jigéen bu lay wax wax naqari ak yenn coono yi nga koy muñ waaye nee na fii sawaabun kasiira ndax yool bu rëy la fa kon loolu la wala doom ju baax jam mooy nekk yokk rëy ba ñun yëpp bàyyi na ko léegi nag ñu ngi départ incha ci aay bi وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج yàlla nee na wa in aratum ndéem namm ngeen yéen góor ñi istibdaala zawjin wëttee jabar maanaam fekkee da ngeen namm sensé benn jabar xëy na am nga ñeent ci biir ñeent yi gis nga kenn kooku nga takk te ñeent mooy limite bi nga bëgg a rocc kenn pour jël keneen loolu la yàlla wax wutee benn jabar makaana zawjin ci bérébu beneen jabar maanaam daal nga fase takk waa tey tum fekk booba jotoon nga ñu joxe idaahum na kenn ci ñoom jabar bi mooy ka nga nam ma fase defoon nga si moom xintaaram alal yu bëree bëri bëri saalam alal du ne mu nga fa te ba koy ngoro ay millions nga si defoon loolu yëpp nag comme dem nga ba gis keneen bëgg a tag da nga koy ñaan boo ko fasee te taalan gii si la Seydina Omar gàggat ci kawam toog na si jamono mu ne kilifa yi yéen laay waxat bu kenn weesooti si can lu romb fukk fukki uqi ak ñaar can daal yonent bi mos a maye lu romb loolu mos a takkee lu romb loolu óogiya nag óogiya yooyu dañuy wute na arab yi réew naa nag óogiya gën na ëpp yooyu comme ñaar téeméeri yi léegi boo koy xool mu ngi toll ci ay quatre cent kon óogiya boobu kon gën na bëri tey benn jigéen na ko Omar ndax yow dañu bu la xëy mi ngi yàlla may yàlla de moo jàngale si alxuraan soo nisaa yi ne waaye tey itam na xintaar ndax xintaar bi kenn xamul lan la boo ne baax na boo ne baax na xintaar nag mooy alal ju bëri si la Omar sëgg ne trop tàngi ñeel na na ba moo ko gën dégg diina di yàgg boppam naan Omar de daanu na jigéen bi moo moo moo gis kër yi dooguma rek bul fase ko bul jël gëlëm bul naan saalam ba dama ko def loolu sa yoon nekk di yàlla nee balaa taaxutu bu leen jël minute sa la ngeen ko jotoon a jox see am dara yàlla ne ataaxutu ndax da ngeen ko bëgg a jël buxtaanan si tooñ wa isman ak bàkkaar mu binan bi aji bit wa kayfa taaxutuuna kaafir nag ngeen koy jëlee sax waqad afdaa ISDA nag ni ko xamee mooy tey xale wu jigéen njëkk bi ngay njëkk a ànd ak moom moom déwén xaw ma nu ngeen tuddee déwén si waaye nag afda bi yenn borom xam-xam yi nee nañ mooy wéet nag jigéen boo ko takkee wéet ak moom rek can bi yëpp dañ koy def boo jotee wéet ak moom rek ngeen wéet jox ko can ga yonent bi wax na xam gis ne man tasaba imaara imraati wa nazara ilayha wajaba sabaha képp ku wuññi bu tugewu jigéen wuññi nga muuraay nag xool ko rek bànnee ko rek euh, sa laax bi yëpp da nga ko joxee can bi yëpp waaye fekkee dafa tàkk rek jotoo ñëw jotu lañ dajee nga tàggoo moom ni su sa laax ngay jël jël can gi bu dee can gi cent mille la woon cinquante mille nga koy jox waaye comme wéet ngeen naka ngeen di jëlee waxal af daal te jot nay jokkoo wéet ba amukum lenn seen kilaa baar yu jëm si leen maanaam jot ngeen ñiy yegg si ndaw ba pare loolu rek waroon nay tax nga bàyyi ko li ci ak li ñu ci joxee donte ay million la comme jot nga yegg si moom rek bàyyi ko loolu doyut te ñoom jigéen ñi ak xam na jàpp leen min kum si yéen mii laa xam kóllëre xale yi dañ dëgër kóllëre mbëggeel mbëggeel ko dëgër. moom ba mu koy takk moom dafa pare pour sëyal la ba faw am na kóol rek mbëggeel bëgg na la ba pare loolu am na si am na ñu ne misaaran xalisam sax mooy doom doom sax xëy na am na si loolu yëpp am ci ba pare nag war nga ko mun a bàyyi nag alal ji nga jotoon na def ci moom comme da nga bëgg a utaat beneen mu noonu ci gàttal daal fee leen yemoon daaw ñu nafaraat ko tuuti. Euh, lii fii mooy départ bi incha allah loolu leen joxe incha allah. jërëjëf Seydi Abdou Thiam ñu ngi amaat yow bu baax. moo rafet yàlla may na la ni ngay tafsiree fasaxa boo xam ne wax dëgg a ci lisaan bi yombut ñëpp du moo ne yow rek la ko yàlla may waaye kon bokk nga ci ñi ko yàlla may alhamdulilah tas bi leer na maanaam ni ngay indee rafet na ba xam ne lu nit ñàkk ñàkk xel soo waxee pare dana mën a am lu mu yóbbu këram jëriñoo ko ngir wax mu leeree te loolee soo ci wax wax ju bari tegtaluwul xam noppi ju jàppaluwul nag réer Mayul Fall wax na ci hadis mu ne man samata najaa ku noppi da nga mucc loolu wax da wax waaw déedéet ñaar yëpp day dagal waaye bu nekk rek. laye biir ci lañ waxee man samata najaa ku noppi ci lu dëgg da nga mucc loolu mooy man samata najaa ku noppi ci lu dul dëgg da nga mucc waaye nag ku noppi ci dëgg te doo mucc moo tax ma ne wéy non su ko say say déggee day am sa yaay day yëngu non waaye fii naa ko nit am na non arab ne wax bi ci gën mooy bokk ak lool dina am ay maanaam kon nag xam ne laa na moo xamal lu subaay gàtt na waaye maa ne la ma du comme ni ko waxee mbokk bi fi ñu yemoon daaw neexaay bu nekk day nekk ak bidaaya al bidaayatu fi nihaayati wa nihaayatu fi bidaayati ay bi daaw dañ ko xool suuf jeexale ko suñu tafsir ren nag ñu ci déparé lenn ci tuuti tuuti door dem ci ay ñu déparé ren ndax ren moo xew waaye day fan daaw tuuti nag pour mën a yëg ren pour mu neex yàlla subhanahu wa taala ngi wax ak ñi gëm yàlla fii tamit mën na leeral tuuti mooy yàlla ñeent façon waxin lay wax ak jaam chaque jour ma leeral ko ci xaral bi naa ko leeralaat muy baamu muy déggee ci ne na ko tuddee woon rek mooy boo lekkee ba suur yow suur nga am na ku ñëw moom xiif na nee daal lekk doy na déet ne suur nga rek bàyyi dee kon bul dégg na sa njaay nekk na yoon tamit naan na kon ci leneen déedéet am na ko déggu doon bàyyi ko déggu doon dégg alxuraan day wan yaayoo naas boobu kenn da yaayoo naas fee nag mooy kaafatan li naas mu yaayoo naas kon yàlla bëgg ñëpp ñun bëgg ñëpp yàlla wooye ñëpp na ba pare di joxe ay ndénkaaneem li bëgg ak li tere jaamam ñi te moo leen moom am na ci am ñu weddi inca li ngay tuddee buus weddi yàlla tuddee yaay tuddee këfuroo kon këfuroo wàcc gaaw naas mooy li ko wàcc ci maanaam ba pare ci naas la yàlla diglee tere am ñu weddi këfuroo la wàcc këfuroo na gannaaw naas dana yaay naas ci naas ba tey ak ñu gëm topp ndigal bàyyi tere ay wàcc gars yi sax amuñu wàcc amuñu amuñu amuñu ndeysaan dëgg la bi amuñu wàcc yi tamit am ñu ko moo na yaa yoon gis nga amuñu ci biir amuñu ni faam mu ne fi mun wàcc waaye jeexam naas yi ñëpp dëggul nañ inkar am kafaro ñëw dëggal am amoon ñëw ci dëggal am koor ay am ne ni faam gën lii may jëli nañ ci bëggul baax fii nag yàlla lu ak yaa ak ñi waaye ñi gëm pare am koor nag jëfe ay bi foo waxee di gëm a pare jëfee li ñu gëm yàlla wax ñu ne yàlla wax lii la nga jàng aaya bi gëm nga bu jeexal ah bu sonn waaye jeexal wàcc na jeexal yow nga gas bu gas da ngay jeexal léegi nag soo ne caa caa boobu gàtt da nga mën fóolu yaa yor soof saabu rek.

comme ni ko mbokk bi leeralee léegi set na wécc am nay jamono nga doon jigéen comme ni doonoo alal yi ah ah islam ne waaye daga na ba léegi rek léeg-léeg sax ma xoolee ko foofu la léeg-léeg si waaw ko bëgg a def dëgg lay wax dëgg lay wax nag sa dégg-dégg rek waaye fii yàlla dafa wax ci aay bi ne yéen yàlla dëgëru ci yéen ngeen doon ay digal ci force kan xam mooy force la ñu gëm yàlla man nag ñu yàlla su ma doon tànn danaa tànn sama gars man sama kaay lay tànn borom guddi borom bëccëg borom bis ñoom amuloon na gëm nañu ku ne am na maqaam bu yàlla jox nag kon ñun daal sax bu ootee jamonoy borom sifa bu ootee ba sifa jeexam jamono faatu bu mu forcé mukk nag bu mu forcé takk beneen jaru ci kanam ci sa kanam am na ku war takk nii bul forcé ku ak ak di ko suul xàttu xàttu dégg maanaam kooku maanaa lay dégg léegi nag bi nga xam ne moo ko moom nag moo ko moom sax nag waaye su koy takkaat ci beneen melo la koy takkaati daf koy takkaate takk ko waaye du ko takkee ci maqaam maqaam suuf na moo nekkal ismu dekkiwaat ci beneen daal dekkal ko foofu mu takkal ko ci beneen xam-xam naan diw ak diw sa ne kenn waaye benn yow diw waaye da ko forcé parce que dafa war a maqaam te mu lu force mu maqaam su boppam day nekk am jàmm xamal naa kon tool ak nguur aslan na kon force bi ci jabar bu jëkkëram faatoo force bi loolu la wala boog Nubu. Yin ta ma sa sa mooy saayu nubu. léegi nag am na ñoo xam ne amoon nañ fi ay soxna ci biir nubu. comme ne Nuuhun Ibrahima Moussa Insa. am na ay soxna ci biir nubu ñoom. soo maa sonn ci leen seen xoom yi. donc seen soxna yi ñëw ci biir. ak noonu. ñooñu tam bu seen jëkkër faatoo. xam lii lay def ki war a doon na amakaay bu ko doon ci fas foofu ki war a doon maqamu nubuut maqamu nuur bu mu doon nubuut ci fas na waxtaan ak waa kër nubuut ñu yë ñu dara nuuxul ci nuuxul ba pare léegi nag ñoom buñ nangoo ne nuuxul dee na ñooñu te ñoo jox dañuy dee dëkk xaaj ci biir maqaam bi nekk moom mu takk na waaye doon takk maqaam ba leer na foofu loolu tax ñu ma xam boobu soxla na ma xam hmm. waaw boo ko defee mu jeex na noonu tëddee demal ci boo demal ci demal ci demal ba tey bu dee saayir na moom leer na mooy comme ni ko jàngee rek bu dee fas yéene benn te it wax ne léegi ci prix bi ne góor am na juróomi maraaxil wala na yu moom yoo ne war na ci bu ci nekkee benn bu neexee jigéen mu dem waaye jigéen baa demoon am na moom moo indi te góor am na joxe can takk te fara sunu moo am na dundal sa soxla yaa ko war dundal ñu ci aaya bi te loolu la wax léegi bàyyi leer ko te loolu dëgg ñaar yaa ko war a wodd wodd yaa war a wodd ko daay am nga ñett yaa ko war a dëkkal dëkkal ci barab ci kër bu rafet ni bu baax boo xam ne moo koy moom su ko mu ubbi tëj tëj tëj te nga dëkku ko it nag dëkkoo ko dëkkoo ko dëkkoo ko nag suy booy mu leen tas dëkkoo waaw nga gis lu bari dëkkoo yi ngeen xokk na nag waaye dama sonn te sonnoo ko dama foo demoon rek na ko war a jox nga jox ko jàmbur te doo ko jox xaram te dana nal soo nekkee loolu la soo nekkee yàlla yàlla yàlla suuf boobu daa def lu ma ko wane. yooyu mu ngi am ci diggante sëy jigéen bàyyi nag mu ngi leeral mu ne jigéen su boobaa bu yii bu ci benn nàkk diggante ba ci góor gi rek am doit dem waaye mooy itam nekk nàkk de ma la dem mooy itam ñu war bi moom moom yi ko war bëri nañ moom jigéen moom it. jigéen bi gën ci jigéen yi mooy ku dégg ndigul jëkkëram jigéen fekk ma nga jigéen am dara ma ko waaw waaw damay ko wax nañ ko déggal jigéen bu fekkee na ko yor ci kër te tout le temps perturbation si nit ñi mu bi façon nga am rek lami bu ñaaw wax ju ñaaw fu mu toll di wax rek jigéen boobu it wax dëgg yàlla bu defee góor mu baax waaye téye bu am bu téye bu téye dana am yoon bu bëri atam muñ na coono ko yàlla teg ñu ma dund yàlla parce que natt nag bu yàlla da ngay góor te ku gën a ku la gën a àndal natt rek nattal mën a gën a yéen ma xam yàlla te pour pire dal la damay dalul moom mëntu ngeen sama taala am na am na xam koy jaar waaye jamono nag dafa kon foofu day boo koy nangoo nee naa na ngaa nooy wala ñu ne góor nga fan nooy lañ koy wax kii li ko jox di wax yëpp kii li ko jox di def yëpp muy kii dafa nooy dañu la nga firi moom waaw da ko muñ mën nga mën a def ah jigéen moom ku nekk muñu la ko wax jigéen quatre-vingt-dix-neuf pour cent laa wax nag jigéen nga yore ko te muñu la ko na ko kon ay bu fasaal ay bu leer la jigéen moo tax ñu koy melalee melokaanu jant jant dañ koy jigéenal jant dañ koy jigéenal caara waaye weer weer dañ koy jigéenal waaw nag weer dafa war a xam nga guddi dafay nooy. xam-xam dëgg la wax dafa war a nooy dafa war a dàq dàq nooy. sin bi jënd am tàngaay boobu yëpp moom la mu bëgg moom. lu bëri ba tànga tàngaay guddi ñëw leeral ko mos a dafa tàngal ci bëccëg bi bu digg mu sa def waaw ñu dégg na waaw léegi nag bu fekkee da ngay dem xam naa sama gars yi tuuti ñoom maanaam lañu bëgg a déglu ñoom waaye maanaam laay wax de maanaam la a nga wuutu nee na naa diw diw mooy sama sëriñ misaal hmm? mu faatu wala mu ngi dund yow am na ngay defa moom ci maqaamam mu faatu nag takk maqaam woote ko du dëkk bu dana yëgoy pëcc ma maqaam du dëkk waaye kan boobu kama ma xamoon day muñ su muñee nag dana taay bi naan ah est-ce que man du tàng ma ko moom. dafa xam ñu rëkkatoo rek. te ñun tam seen am nañu am ñu rëkkatoo maqaam bi. waaye maqaam foog ñu ci borom. loo ko jokkoo ak borom foog ñu ci borom mm. parce que borom ko moo tax. gis nga gis nga lu ñuy bëri bëri bëri doo ko dóor dóor dóor bu bu bëri leen wàllu moom. Mm. maqaam nu la mel. loo ko lu mu bëri bëri ba ñëpp dafa war di jël lu tee ba maqaam ñu su dëgg bi maa war a faral fañ kër ma woon na wala fii yàlla fii bu fekkee ne. yow góor gi am nga soxna te jikko na la métti na trop la wax ji bëri na damay kii na bëri na yooyu bëri nga ko waaye nga muñ ko ngir am nga moom ak njaboot même boobu rek njaboot nga rus yàlla ci moom waaw parce que njaboot ñaar la bu feeñ ak bu nëbb bu feeñee mooy yu feeñ di war bi ak seen feeñ yu nëbbee mooy andi nga ànd ak moom ñëwoon yàlla mu ne waaw faasa an takuru cheikh mu ne amal na nag soo muñee yow góor gi te jëmoon googu dañ ci gis benn benn waay bu feeñ te ndox yu feeñ nekk nekk nekk nekk borom sol ci jamono kon nekk jigéen dana bon waaw dana jël ku baax léegi da nga yaa jël ku baax mu jël ku baax déedéet gën dana bon jur ku baax gën dana baax jur ku bon naa ko wax da nga jóg ne ku ah baax day ku wax bon déedéet yàlla yàlla du defee loolu kon yàlla dëgg yàlla dee fekk lu ko ñëpp mu ngi ci lu baax yaa ay yëg na mayit yi dañoo mayit bi ku bon ku gën a ku baax nag gis ngeen leen yaakaar na xam ngeen leen ku baax ku gën a ku bon it yaakaar naa xam nañ leen gis ne ma kaay du jeex ci alquran ak hadis ak nit di jaar ñu tegul yàlla yi. soo soo ma caayee kenn wala nga laaj ma sa ñaan mosuñ ci kenn parce que wax bi kii na ma ne waaw dañuy seet yëf ci yàlla Ibrahim ku yaayam rek. wala nga ne kuy kon yaakaar naa kooku nga xam ne amutoon diine kon diine kéefir junne yëpp yàlla boo xam ne mooy abu anbiya te junne bu baax bu baax ku baaxee jur ku bon bu dee ci wàllu góor góor Seydina Aliou Mbaye abotaay lan lool ku bon yéefir junne ku baax man ñu baax ñu gën ñëpp ñu si la xam waaw xam ne wala moo koy bëri bëri na bëri ko bàyyi ñu ko bëri am na noohu gis nañ ko fi ku baax la am jabar ju bon am doom ju bon am doom yu baax kon yàlla ni muy defee moo ko moo ko moom moo tax moom moom nguuram ñu ko dalee sopp ne la dara ci moom waaye lii moom li ko tax a jóg maanaam dëgg rek. tey am na yoo xam ne audio dafiy diis di diis audio waaye da ngay parabole ngay lépp boo na borom sifa wala borom is wala borom nangam borom maqaam bi bu dee fokk rek gars yi ka ko war a ut da ngay bit ba xaw ca moom def jox kenn ku mu da nga loolu. leer na. waaye borom maqaam moom day muñ uuf ko u ut njaboot gi. dana uuf ñëpp fàkk na xam yaay bañ fi du koy bañ sa baay waaye mooy sa baay parce que moom maqaam moo ko takkaat da nga wax boobu bu mu leeree ba ëpp ci ñu ko yooyu lu baax bu ko dee gars yi léegi dañuy safu xam-xam lañu ba pare nag duñu ko duñu ko dóoree boole si parce que ak nag lu ma xamoon tàng tàng doon ma xam métti métti métti métti mooy jamono ju métti mu xam lu koy doy doy ci yàlla ñu tàgg daanaka man kii ñu ma ko laal te yow dañu ko war a baax da nga yore yow ndax sans problème. da nga koy yéene ci ñaar da nga koy yéene ngir ne maqaam bi ak war a yéene ba pare yéen ko am ngir ngir njaboot bi fi bàyyi nga nga ut leen. waaw njaboot bi ñu bàyyi xam nga ne yëpp mu bàyyi njabootam ba léegi voilà c'est vrai bàyyi bu njabootam bàyyi bàyyi bu njabootam ba léegi nga dugg ko sama xaaral njabootam. loolu yëpp dafay sët ci yàlla subhanahu wa taala moo tax bëgguma tur sëttu waaye eh, li ma wax wala borom ngelaw sax léegi ñu naan jëf rek lakk borom ngelaw waaw daal la ci xam borom ngelaw boo bëggee gëlmaa ne topp ma xam ne sax ma xaj ko wala bi diw voilà ñu amee làkk yoo xam ne rek ñu xam kon yooyu la yàlla leeral fii muy lu day waar aay bu garaaw la parce que daaw bi ñu tij ba solo bi ñu tij daaw ñu naan aay bu solo firi dana xaw a métti lool effectivement te ba léegi nag li si aay mu gën a bëri aay bi moom aay bi mu dëgg dëgg yàlla kese kese aay bi moom amul dara lu yomb bu tàng jër bu sat ñu ko masque bu baax waaye daal téyal rek insam boo xam ne insam loolu jàngaloon islam day ñëw ëllëg day ne safar xam nga jir benn la rek waaw ah, day ñëw tur ba pare bi ñëw ëllëg day xam nga jir ñu ko sax ngir rëy nit ñi ñu ngeen day ci nit ñi kan ak yàlla wàcc ci wàcc booy ci moom ñu wàcc ci moom ay ay saaba yu malaaka ñu ci nangam nag yàlla ñu ci moom day am ko fii naan man la waaw ah. ma ne boo ko firee ay am bàyyi nii rek baax na lii ma sa gën nii mu ñëw liggéey rek lii ma sa gën yow doy na ci ay ay boo ko firee day picc ay ay baax na ay bu leer ngi ci ay ku ne war a cee dox ay sax ma jar na kenn ku yóbbu sa jàng ci ay daaw bi ma jeexal kuy tëj ma mu ne maa koy boos dama koy wax man ay bii bon ay gré ay rafet na trop ay jàngal yàlla nii jàngal yàlla trop jàngal si muñ

ñu dem deuxième aaya e bi ñu war a commencé ren suñu defaru ren fii tamit xaw naa xaw naa tàng seddul aaya e bi seddul ndaxte nga takk jigéen ci fata sunna nga yokk ci ngor yar te nga bëgg ma bëgg nga dem ba magal wala mu kii nga xool keneen bu ko du mooy moom moo tax ma taxaay bi tàng na kat tàng na de diina dafa tàng de yenn saa yi diina yéen da bi dafa teel mbamb tey de la mbamb da ngay mbambal la te léegi nag def ko nga am ñeenti jabar aaro mu màggat fekk am na doom doon sax lay soo ñëwee dóor foofu xam ayal dama ayu tàng la la ko ay jël te dagal na nag yàlla moo ne wéy artu parce su ngeen su ngeen nammee wala wax dëgg ko parce que nee ban nam def lan isim daal la zawji maanaam sa wëttee jabar maanaam sa wë fante ko wëtte beneen jabar maanaam sa jabar gi nii moom a maqaama bi nga nga gis benn jabar war takkaat nga jël jabar wëttee ko maqaama jabar gi nga bàyyi kay mu dem ba takk jam ko jël jëgal cat bi ah pourtant ah. waaw yow nga ñeenti jabar tàkk léegi nag lay seet nag léegi nag nag fu jafe moom kat fii tamit fu jafe la kat xam nga mutasaayir bi nga xam ne moom moo taxaw ci xadrul baqaar bi moom day am ñeenti jabar léegi nag bu ko ñeenteel mooy gis ku ku ci xaw a màggat mbaa ku jël gëdd la a am na moom am na droit bàyyi ko takkat beneen ko remplacer su naa ko dina kat jabar mutasaayir ba day tukki waaw xam ne ko man ca asal daf koy bàyyi asal xataa asal daal lu mu wóyal ko bàyyee dëgg nga waaye day toxal nag fekk lu muy jot da koy toxal ci pété ko fekk bi ngay jiwoon ak dund nga gasa ak ko mën a ñetti jabar taxoon na waaye maqaama ba ngay jël daf ko jigéen léegi bari ma xam ne kan jëkkër di ci biir léegi maqaama bu njëkk bi léegi nag tukki nga boobu da koy efal leen vëdd ko ci kaw ma ne la loolu dégg nga dégg mu ne dama tey suñ jamono tey suñu borom jant bi tey borom jant bi moom mooy tukkikat bi. bu ñëwee ba taw ci yàgg na mbaqaay am na ñeenti soxna. am na Pawla Arosara Mbacke ñu am na. su ñu koy yàgg mbaqaay nag bànneex bu mu fekkee ne ci ndey ay si fii ci yàgg mbaqaay bànneex boobu. ndaw su rafet suñu gis fii ci ci ndaw bi fii. boo ko ñeent jabar yële am na droit bàyyi kenn ndax ko taamu juróom. bu ma koy bàyyi kati basal lay baax. waaw. bu ma leeral wax nañu ko bu ma leeral ba ko sa ndey bàyyi waaye bu ko bàyyee nag alal jo nga ma du ko nangu dafa bàyyi en tant que yàlla ni sa dee asamaan bu bàyyi ba léegi dégg ma so dégg ay bu rafet la amit ay bu rafet la ay yu neex ay yi moom yëpp gaaw waaw yow ni ko ma yàlla li ma xam na waaw bu tax njaboot dañu ko mere njaboot duñu ko mere moom njaboot duñu ko mere donc dañuy tudd di leen sàgg ay malaan di leen ay cër ay am ay at yaa moom lii yaa moom lii sa bàyyi moom lii fii da nga xam ne kontaan ñu rek. su kontaan gars yi di ah, mu ne da nga dem saa yoo xam ne naasul dafa da nga abal prix. su bëggee fay léegi foog nga xam naasul prix. naasul xëy na borom ma xam bi tax foofu noonu léegi waaye kële nag fekkee mooy kii nag fekkee mooy kii nag waaye yóbbu yóbbu dafa dafa dégg dafa judduwaat ci kanam soxla rek soxla mu taxaw ah, day waar wax ñi wax tam yàlla waxee tam yàlla mi xam lii de mi mi xam comme yàlla attends mbir yi nañu laajte biir rek dañu laajte biir dafa am xam-xam yu bëri yoo xam ne yàlla nëbb na ko rek nii daal nii dëgg la ah yàlla dëgg la rek ngeen mën a ànd mu gën waaye ay doy waar la ah waaw doy na li ci suñu benn dañu fi mu benn loo xam ne boo léegi noonu dégage la rek mais dañu ne moom. xam nga loolu da nga xam ne yàlla moo xaw a muus ci wax yàlla ma ne wala lëwal daal dama la réglé wax ñeent la wax ñeent wax day teg teg wala bu sax mu waaye aarif ñoom bu ñu ñëwee ñoom dañ koy lim juróomi jamono ñu lim ba pare tëdd nag juróomi juróomi dikkal bu yàggee nag boo ko bëggee def da ngay def benn dikkal nag léegi mu ne ko juróomi jamono dafa sakal pour mën am ñeenti ah oo tuub wala moom jeex na juróomi jamono dafa sa kër ci asal ba te nga nekk da muy kii waaw te ba nga ba nga jiwoon ne da muy kii bi bi bi wote xaw na bu fekkoon nag may ko alal ju bëri bu jël ci alal ji dara loolu léeru jox nga ko mboolem bi yàlla bi ñu ci moom même boo ñëwee daa suñu diggante diggante daa suñu doxu maqaam mu waaye bu lay bu jël ci alal ji dara lépp koy bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi moom nit pour naan dara nga dox suñu ministère ndax yow da nga bëgg a bu taara ci tooy bu mel ne ko borom ba xaw ma jàmm ba ko fa génne li rek ay def tey waaw am nga def tey ñu ko def tey ñu ko départ sot sot alquran bu faa ndax dégg-dégg yaa ñàmm ni affaire la bar na ko defee dégg fekk dégg mu ngi nii waaye daa ngi leer nañ an tabasul fa bu taara ndax da ngaa bëgg a def contraire li yàlla gëm. booy santa bàkkaar la nga ne ko biir. Cheikh Ibrahima ni moom maqaama bi nga ko noor. waaw waaw ko bopp da ngay sabal xam naa daa sabal ba gën a jëm. leer na saa yëpp yaa ngi foog naa la nuyu sabal. xam nga ni nag daal loolu si mel ne bu mu taa fi jëlaat kon lii la bu loolu si mel bu mu taa bu mu taa rek bu mu taa fi jëlaat ngeen ko bëggee jàmm ma xaar ngeen bëgg bëgg bëgg taal bu sëy moom rek bu bëgg bàyyi ma fa rek dëgg la de bàyyi ma fa rek bu mu taa fi jëlaat voilà waaw waaw waaw yàlla na lay waaw waxee ma taxasulu nak ngeen sax nag yéen nekk ngeen ay jëf du dof dof dañu bu doyee te yéen ah waxat afda xaaral foog ngeen xaaral foog ngeen. premier frère xaaral foog ngeen bii bii fii man waxtaan góor def xaaral góor ngay def waaye góor yëpp di xarab lay firi xarab baatin la góor jigéen xarab lay firi kon xarab maa baax de ko bi baax de maanaam sa bos ak sa ak bosam bennoo nañ dafa ngeen waaw yëpp yow nga am benn benn ko borom benn kon nga bëgg dàq borom ay eh, la daan ci yow nga ne mooy sama nang bi ba pare pare nag nga bëgg dama xam la jël waaj ah doo ko lay sëñ bi dañ la bàyyi ngay coow da yàq nit ñi rek mais eh, doo ko lay kon nañ sant yàlla baax ci yàlla ngay dégg toog waaw te yow ba axas na bawol ba jàppal na ak yow bëgg rek sa ko moom du ko dagg mukk bu ba am ne wa amaan dañ mi sanam xalis am ko wala ko fu ngër mi sanam xalis nga am wala ko dëggal te kii nga gëm tey moo la bi gëm sa xam la xam la min sa waaw si suñu boobu nag nga mooy lu pël boobu yéen ngaa ngi fekk te ñu bëggoon wax ma. waaw waaw waaw waaw waaw. yaa bal baay. moo tax bu ko baxal du ko jaar. ba ay ay moom dëgg yàlla moom dëgg dëgg ay ñeel na jamono tey jamono tey ay ñëw na jamono tey ñooñu tey dañu góorgóorlu baax ci tey yàlla. Baye Niass dafa wax ne jàpp alquran mii pour fépp la pour la ba faww la ay na boo ko toppee ay pour démb rek la ay boo ko jàngee design pour démb rek parce que ñu fi koñ dem ñu fi koñ xale ya wuñ numéro ñoom fekkoo ñu jaas yi fekku ñooyu yëpp nga ko ay rek yóbbu ko sa mënu sol lii sa ñu fukki sa mënu sol lii ah, ah, ah yàlla wàcc alxuraan wàcc ba jeex wàcc ba jeex te Makka wàcc ba jeex te ñun Sénégal yi dëkk te ñun tere ay kon est-ce que duñ ko jël seen ko tey waaye mu dégg kon mënu ba tabaare alxuraan pour ba faw kii ma dégg moo tax aaya léeg-léeg sax nga dégg ñu aay bi dafa dañ koo folli ba nga mën suuxal aaya bi ko folli aaya bi ñu ko folli te naa lay dañ ko folli waaye ñu ko folli ñaari lay lay gis nga ko misaal cent ci kan ci ku ci ku bëgg jub ci yow la folli ko yaa bëgg jub ñu folli ko jub naanu ko woon kan looy dundee moom te man te doo war a yéefar la mu jigéen ñi day julli ngay julli boo war ngay war ma mu naan sàngar la lu mu def mu gën topp rek ndax ay fale ko ci moom waaye mu fële ko ci moom nga naan ba léegi moom waaye bu tuubee nag ba baax ko fale ko ci moom parce que lu muy fële moo tax maanaam sami ne daw ñu si na di bata mina yàlla ba su ma nee ay dafa fële ay ay bu gën a baax day indi ay yàlla fol yàlla ba jóge as fol ne as bu folu as mu tal mën ko ndax nag fale ko la fale ko la nu boo ñëw ba jag mu tëj ko ubbi wilaay ndax kenn doon ko fale ko la day fale ko wala ka day bàyyi nit yi lu moom fale ko la ñu rek rek rek rek bàyyi nit yi du fale ko sëñ bi la rek parabole la boo xam ne dañ fi bàyyi di ko jàngal moo tax fale ko wala kilaa fa ñëw rek ñu fal wilaay kon bàyyi bàyyi bàyyi mos a kii xam nga ba xëy ñooy may fan naa ko bu leen di fan naa koy fan naa koy may ko xalaat ko moom du fa dem du des ci ñu ci liggéeyam voilà yow nag boo dee ba dul ba xëy nag yow ay fan naa yooyu yow yooyu yooyu il faut nekk ci yow parce que xam-xam dëgg la maa ngi ñëw xaaral maa ngi ñëw dama koy fàtte bu boobaa yow nga dégg bàyyi su dee jàng naa ne tugu chef moo gën wasi fa wërsëg bi yéen allah suñu ànd waaye noonu def. waaw te moom nga dem tey tudd seetal di ko bàq mu dund. dëgg la na la saxal kii. waaye nag comme que saxalee tur ya kon jàppatule ak moom rek. Mm-hmm. parce que loolu tur moo tax. comme tudd ba turi kay moo gën tur wi. jàppam tur yi jàppam tur yi moo gën tur wi voilà. dégg nga awoon nga mais bàq waaye nag boo demee ba xam buntu bi nag di tudd ay tuddam bu ngay bégee baax na ba tey a baax day gën a a ndox moo tax Alxuraan ne waxas na min ku mi ay sa nga jàppal ko lu wér suñ ko laaj seetal wér na bu ci kenn bàyyi dara mooy soo nag dafa wax moom da ko dindi fecc dafa fecc ko lër yëpp moo xam ne suñu wasamax suñu yëpp la fecc loolu ma julli foo teg lii sa lay ban xadis ban aaya doo ko gis mukk tàkk xale wala bul julli waa mbaa bul woor mbaa bul asaka encore amut bul julli bul woor bu jël asaka wala bul dem ba amut ci alquran xanaa ngànt ñëwal la kenn ngànt bañ dëgg aaya la naan te nag muy suba day taw ba julli ko dama dugg julli asal asal amul julli asal boobu julli asal amul julli asal moom amul julli moom moo julli moom. su naa ca asal déggoo xamoo asal asal moom muy julli ca asal kon julliwoo ca asal bu la julli ca asal parce que julli amul rek. xëy na waaw rek asal amul julli. wax naa Assa Diop boo doon jëlee ci Assa Assa xamul tane xamul Assa la doon moo tax dëgg-dëgg Cheikh Ibrahim Niass dëgg-dëgg dëgg-dëgg yaa ñoo fay ñu ko noppal nañu lool ñun li ngay wax nag jox yàlla noppal na la waaw kon ni Sane Saïssou mu ngi noonu ay yaakaar naa fu leen maa ci bëgg di waxal rek. si genre Kalisa ñun am na misaal Kalisa ak ak ak ak Assane am na misaal Kalisa ak yu ak Ndoumbou ak ak ak ak rek yooyu yëpp nag bu ñu fas a genn gaay dañoo xam xormal ñëpp xormal leen te suñu xadra baqaay bi nga toog ba fay toog kese dëggal ko dëggal ñu ci biir foofu moom bu ko deewaat misaal Kalisa bari foofu soo koy demee ne mooy la ay ak am ko lay mosul jant di wuy dal. waa ajal ñi ragal yàlla mu taxoon mooy yan du mooy waa kilaab mu taxoon nag mooy mooy mooy masaar yëpp ñu mu taxoon fii xaa nag ci ajala bi fii ajala la fii xaa ci ajala bu jaa xatay yow bu dem fële fii la wax fii xaa jaadu baqaw bii ci la nekk anaaru min maa amoon fële fii la ba wut tëddee xol bi fii xaa anaaru min maa reeru as anaaru min labanin lan nga koy tàmm والعالم من الخمر لزاد المسالفين والعالم من من للسفر ويقول لهم يرمون فيها انقسم فيها انقسم طب انسى دي البحر لو ديجي ديجي بوم مثلا يلا بن كوي يلا يلا بن كوي تقول يا بيجي بيجي بيجي لي نجبر نعم كان نيو أوسي شبراهيم بعد بيجي تبعي إيه؟ سمعه سليم واحد dëgg bi dafay rafet trop ak Alxuraan moom ku xam yàlla mën ko firi. xam nga lii moom yow boo ko firi li li ma xam loo ma wax. mais araktum su ngeen demee istala sawti rama jabar ma xasee beneen jabar ah tey yéen tuba da ngay dikkee itam kenn si kenn dikkee kenn si ñoom yéen kenn daal alal jubal nga mel ko parce que bu demoon nangoon yi min naan mi nekkoon ci alal ja seen dara tax da ngay jàpp boo taanaan tooy tooy ak bàkkaar ak bu loolu nga ci am. lii kese nga am ci ay. ah yow doo xam xàqu yàlla. xam xàqu yàlla ci ay. yow xam naa xàqu nit ñi ci ay waaye xam nga xàqu yàlla ci ay. xam nga xàqu yéen dindi xam nga ko seen xam nga xàqu bay jaar. parce que ku seen xàqi fàqu. loolu lañ bëgg wax. te wax kay fa topp suñu. non ay bi neex na ma daay bii tamit. ñaari ay yëpp nañ ko bokkal. ñun ñëpp ñaari ay yi. bi ñu bi ñu tëjewoon daaw loolu bi ñu ubbee ren nañ ko boog jokkaante ma soog koo tasul pour di ko tasaraat di ko xalaat di liggéey ak di dégg xam-xam bu bëri bëri tëju fii. loolu xam nga mën naa ñu mag ñi mag ñaa ngi fii am bëgg ku ci xam rek laa jàpp parce que mag mooy xam raa bu xale mooy mag mag mooy ko xam rek mag mooy ko xam. xale mooy ko xamul. loolu mooy maa xam foofu ndaay ko mooy moo xam kon ñu ngi sant yàlla aay bi dëgg-dëgg doy na. leeral bi leeral bu jeex waaye doy na ñu duggaat ne nag bu fekkee mat na. waaw. ah yéen da ngeen a wax xam nga or ngeen fu ne. ah ndax lekk ci bi dagan na. fële ko lu jigéen. waaw ah, kii rek moom. xam nga xam nga alhamdulilah laal na gën naa leen eh, ñu continuer wala tankihu maa nakaa aabaa'ukum mina nisaa'i illaa maa qad salaf aay bi dafa mel ni dafa ñëw pour gën a dëgëral aay nga jiitu ndax boo xoolee yàlla moom ne yéen ñu gëm laa yahillu lakum an tarifa nisaa karahan gaa yi bàyyi woon leen doon jabar ci force waaye nag ñu bëgg a indi beneen façon di négocier ndaw si sa jabari bàyyi ji bu dagore bu paree nga jéem koo takk xam nga doonoo ko ci force a profitoo moom yàlla topp leen ba léegi rek di gën a dàq dawul sol benn waay bàyyam faatu na. loolu de foofu am na de man maa ko laa roon bi lay doon sos am na. waaw. ma jox la. déedéet. danga koy dégg rek. waaw. ah yow borom ma xam dara foofu nga teg fa benn waaye na na na ma wut. dëgg la yéen nga yéen nga yéen nga dëggoo ci moom. loolu la borom ma xam fee toog. dëgg la. waaw waaw waaw. léegi waa ji. bi paapam faatoo mu xool benn jabari baayam boo xam ne nii taaru naa ak moom rek. mu tok toog su peggam di ko jéem la labat ndaw si na ko loolu mënut a de man mënuma ànd ak sa baay ba para sa baay jógee fi may ñu di àndante yow waa ji na ko eh fekkal ñu jéem a rek il faut mu ji la xamna naa am sooy sooy bu ko bëggee tàgg nak gaay yi dem bi bañ démé si bi rek ay wàcc ay wàcc yàlla nee na wala tànkoo bu leen denc maa naka xala dencoon na ko abaawukum seeni baay mina nisaay si jigéen ñi sa baay takkoon na ko xaraam na la mënatoo ko takk ah illaa maa qad salafa lu loo xam ne jotoon na jiitu waaw nee na yonent bi am na benn maamam si maama bi boo xam ne dafa noloon yàlla day bañ a jam affaire bi fa indi istisna wane ne lu jiitu jiitu moo am problème njëkk aay di wàcc loolu am problème. innahu naka takk sa jabari baay kaana nekk na faahishatan di ñaawteef ñaaw a ñaaw ba maqtan ak ak sànq yi boo xam nii lu yàlla bañ na. wasaa fon na sax sabilan si yoon koo xam ne koy bëgg jël di ko def. kon aay boobu moom pour ndeyam mooy dugg waaw baax na comme que daal mooy ma doon wax noonu ndax nee na kii naa na defoon na ko takkoon na jabaru daayam jabaru moo tax. waaw waaw jërëjëf. kii naa naan kii naa na nag kii naa na nag kii naa na xam nga lii kii naa na gars yi kii naa na mooy lu ñu béy daal. a muy kinayet rek kinaana mooy lu nëbbee daal kinayet mooy lu nëbbee daal mooy mooy kinayet defoon na ko kinaana mooy lu nëbbee daal parce que mooy fi ñuy def kin na la jógee bii fi nëbb am na baa yoo xam ne ka dafay xam xalaat gars yi fi ñuy dugal seen seet waaw ba léegi kon ñu ngi sant yàlla beneen yoon di gërëmaat wax dëgg yàlla Seyd Abdou Thiam toujours ci leeral yi waaye di ndokkeel tamit waa jataay bi ci déglu bi ak dégg-dégg yi yi yàlla maye ci déglu ñuy déglu di wax ñu ci bëggee lool ku nekk ci di sant ci ngay dégg loolu xewal bu yàlla maye yàlla yàlla gën ko yokk ay bi tàng ay bi tàng irsamu bulqan yàlla mu ne wala taddoo bu leen takk bu leen takk maa nag xa abaaw mu sañ bàyyi takk takk si yow du fay loolu dul aaye loolu dégg nga war a xam ne baaxul nga xam nga li lay xamal ne li lay xamal lu am la ba pare yàlla du ko waxaat da lay kon am na dafa ngay fàttali ne bu ko def lu amoon la bu ko def soo ko defee def ko lu arab dana métti ah waaw waaye da soo ko defal yàlla mais ana xam-xam yooyu leeral ngi dem jaxala ko moo tax dem jaxala ko dana ko dégg dégg boo xam ne du bàttan moo tax wala tënk ko daal ci lañ toll. bu leen tënk. maa ngi nekk li nga xam seen papa takkoon nañ ko mooy ministre ci jigéen ñi muy jabar ilaa nga ne maa na nga xam ne asalaam pasoon kon amoon na pasoon. innahu naka si jabar innahu boobu fóol la laata te te te jël bopp la jël. kaana nekk na moom tax jël bopp jël fa isqal ji lu ñaaw. yéemu jël fa maxtan ak jébbim yàlla maanaam mbayam yàlla dana jébbi la la bay na ci li nga def. parce que affaire bon naa ko wala ni mu koy répété bon na. seen benn boobu la yor yow mi ngi jël bon na. léegi nag li ñu ciy musal ñun mooy comme paasu xoon na li ñu jàngaloon bu leen ko def tey waaye amoon na démb waaye tey bu leen ko def kon mën ci diggante ñun tamit ñun suñu bàyyi yi borom suuf suñu bàyyi la borom bis mu suñu bàyyi la borom suñu bàyyi la abba akum seen bàyyi te ñoom seen jamono ay bi la miti xam nga miti xam nga borom asam moom moom moom jabar borom asam yaa war noppi borom asam moom moom jabar yi te borom biddu ñëwee takk na. ñu ak suñu réew tax ma tax ma ne ko réew mu tàng jëm. bu doon dem jaww jee la. boo dem baax mu ne la paas gis. moo tax borom. jant moom bi ñëwee hindi la wax. waaw nag moo naka moo ko naka jëkk moo ko hindi. rafet na lu naka di wax la nit ñi en tant que ay bëgg a tànn ci yéen waaye ko oyofal rek pour ma dem. wante boobu la naka maa naka abaa ko gisal bàyyi ko. ministère yi ci jigéen ñi ci laa mën a fas la fu lu naka la maa soor nag. indi woon naka takk si yow rek bàyyi naa kàddu gi ak ñaaw. ba maxtaan bii sañ dem yàlla may melem yàlla ba saa te bon seen boobu la yoon kon takk jabar bàyyi baaxul ñun la baaxul démb comme moom su boobaa nag ñun ñii toog ndax dañu yee ci ñun ñu woote maqaama si maqaama tàng moom waaye bii tàng na parce que borom ahlu ñoom ñoom ñoo moom mbir yabul ila nga bëgg yow bokk ci yow bokk ci bokk ci nga bëgg ko bu jor ko li ci am ay tukki danaay walaay comprendre ko man naka gaañ bu kenn ootee suñu war a bàyyi ko kenn ci yow. dina baaxal foofu. bu ko defee defoo lu ñaaw. dafa meram yàlla. dafa bàyyi nag ku ootee maqaama da nga ñàkk a pare ma xam ne lu na ñaar la ci lu fay mu duma la ba ko da nga dem sa bopp ko. Ah, gis nga bëgg tubaab moo gën.

lii doy na parce que ci audio lañ nekk moo tax ci direct lañ nekk am na yoo xam ne duñ ko leeral ko leeralee dëgg-dëgg dafa am ñu ci jëlee feebar te ñu bëgg léebee dara jabar xam ne leen jabar yi yàlla wax fii jabar maanaa la jabar yi ngeen xam mooy leeral woon ci ay bële wala axatu min butun ummaatikum kon yéen tam di war a dégg yow yooyu nag yow tam boo sax saa taxawee xam nga yóbbaale Insa yaayam Mayam ku doon jabar moom ku doon jëkkër de xam xam xanaa yéen xanaa benn xanaa gën a xam yàlla war na war na mën a fii mu dugg rek rek la war voilà yow nga xam naa bàyyi su ne yow itam nee na yow nga xamu ci jabar bu njëkk ci àjjana mu yaay muy Mayam waaw mooy Asim mooy mag benn la Asim bu am Mariam ak kii ñu jox huit thousand ci ajal Asim bu wul franc ci la bokk Mariam ci la bokk maanaam waaw xam tax yow boo demee ba fii dem xalaat la fa fa daaw pare boo jógee asal ñun du ko nekk nekk jabaram Asim la ngay wax waaye Mariam ay ruuf fu ñu ko dugg sëriñ bi muy jabaram waaye nag ASC dafa lu lu lu ngeen laqee ko suba ba fa lu ñu laqee ASC kon ASC dafa nekk jigéen maanaam day nekk jigéen ñoom benn dikk la ñu kon xaq yëpp ngay def ay jigéen kon di mu dem. waaw koo jiite mu dem. yëpp ngeen jigéen koo jiite mu dem. kon baax di kontaanati moom lool. ci dënnam aaya bi doy doy na car te parce que yow moom du sax dana aaya parce que aaya bu aaya bi moom moom kenn kese bu wér mu dem tàngal jël aaya boobu aaya ñëw nii aaya yëpp a tànk aaya yi moom aaya moom ko amul kii mënoo mën dara moom aaya moom soo soo mujj dara aaya dégg rek jéemal balaa may ñëw jéemal balaa may ñëw bukan moom da nga jël ay penggaya yang dia kon gars yi yàlla ada ñu ada ñu dégg dëgg-dëgg yang bii xam nga yàlla subhanahu wa yang yàlla yàlla untuk ñu dégg topp képp kenn ci ñun yàlla yàlla may ko dégg ak topp dégg dëgg dëggal ko topp njëriñ pour nga mën ko jëriñoo yàlla may ko zaare ci bàtte xadara bii de di gërëm ñu ko ñëpp di dégg adara di bëggee ummu islam bi yëpp nag ñu ngi bëggee ñëpp ndeysaan léeg-léeg nga ne ku ne sa bàyyi nekk góor taxul teewul bàyyi dama nekk góor ndeysaan loolu saa la rek man sama bàyyi da nekk góor te bàyyi jàmbur góor te bàyyi jàmbur laa wax waaw bàyyi yéen yàlla noonu amul ay doom xam nga ko dox ko du ay doom lañ Moussa nag Aysa nag ñoom ñoom ñoom amuñu ay doom ah ah waaw man man sama bàyyi yéen man sama bàyyi moom moo gis moom moom moo moo gis mu leen gis loolu sama bàyyi bu ñëwee boo ko dëggalee sa bàyyi day ne bu yomb laa wax. mais Cheikh Tidiane day nekk dëgg mu nekk dëgg parce que boo ñu góor lañ moom bàyyi dëggal dëggal laa kon ñu ngi sant yàlla di kontaanati di bég lool wax di yàlla ci xadra bi rafet na taaru na neex na tey moo doon ouverture incha allah rabbi suba ku ci yàlla mayloo ku ci xam xadara da nga mën a tafsir ñu yombalal rek ku nekk tafsir sa kër am problème day yombal mbir parce que maa ngi sol ci xadara suñu tey yëpp am na ko bu bëri ah. amul tax xam nga ñun tuuti ma di wax di feeñal yàlla def ci xadara bi bu fekkoon ñëpp lépp ci li defee rek. xalu du du si du yàpp moo tax day naju ba tey day naju rek tasallu waaye tey boo demee ca àll tuubaay da nga fekk ay xale yoo xam ne jël ñu ko jox tam xëy yàlla bu rafet te day noppi demal tëb tasara war ngaa xataraam tey da nga fekk ay booy ñu waxta waxtaan yu yaatu ñoom it te bu ñëw fi dañuy kon loolu ubbi la nga demal ci am sa tur bi boo demee tey fa tey géej waay da ngay ubbi gars yi di jël ñu ko dox ay wax yàlla bu yaatu rafet te bu ñu fi day tëj demal ci Abdou Thiam mii xadaram tey dafay booy dañuy wax kontaan comme que bu yaatu te bu ñu fi dañuy tëj demal demal demal. waaye bu ñu annoncé mu yaatu nag ku nekk mën a bàqoo fa nga nekk bi am sa adara yoo ba pare te ñëpp ñu fi nekkat benn bi dëgg la bi li moo tax li moo tax lii moo rafet trop. léegi nañ ci góorgóorlu gars yi nañ góorgóorlu xam ne ñoo bokk nee bàyyi rek nag waaye nag ku nekk nag bu ñu demee ruqul nga dagan na ruqul xaar yi dagan na. Hmm. ruqul xaar dagan na ay kër gi foog mu ruqul xaar kër xale bi benn ruq bu ñëwul douze bu jàngul du baax. baax na kër xam nga ñoo wàññi. ak xaaral ba ñuy tax attiré gars yi ak ne ba ngay faral. waaye yow kon nag baw. dégg naa ko de. dégg naa ko wala ba waa ma ne kër may na bu la desoo kuy bare bu rek. bu baa yàlla ba jënd. yàlla am na lu ko bëggoon am na ko aar am na ko daal su ko baax te mooy jëm yàlla ba mu ko def. daa koy yóbbu. kon nag daa yóbbu yi. ok na ñëw tamit. nañ def rek nag li li li li moo def. <laughs> nañ dañ ci yokk ceeb bi bi ko solaan mu dafa ñëw. nañ dañ ci waañ bi te dafa ne waaye bu ñu solaan mu dog rek indi ñu lekk. saal bi nakal entre la bu gan ñëwee du ne bàyyi ñu xam ne bi suñu gàllañ. waaw bu yorul kay moom day baax. dëgg bu ko deel xam nag suñu waaw waaw. maa ngi leen di dokkal. asalaamaaleykum. jërëjëf. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان